ذاتها ومن عليه بكل ما له لا قد سأل الندى من أين فارتسب لشيخ أحمد مدسيس وهو يا لمن قل فيا إلهي تقبل منه حاجته ومن عليه بكل ما له لا سألت الندى من أين فاحتسب وفي شيخ أحمد فيه وكفى mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yow mi siifur Baye Birame 2 Jaamal TV maa ngi lay ñaan ngay commentaire tey partagé tey j'aime bu fekkee abonné go ngir yàlla nga laal kolos notification bu nga bass abonné bi laal kolos notification bop xamné mo ñamay doole. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah ورضي الله تعالى عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجان سقانا الله من بحره بأعظم الأوان وحشرنا الله سبحانه وتعالى من زمرته إلى بحبوحة الجنان بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi sant yàlla bu baax kenn ku nekk ñi ngi koy nuyu ci suñu loxol xol waaye di ko xamal ne ko gis nañ ko ci suñu bëtu xol ndax temps bi jeex na te ñépp ci jàpp te mu yelloon kenn ku nekk ñi jaar ci sa tur comme na ko suñ mag junjee lay ngéy waaye am na lu ëpp solo tudd am na lu ëpp solo te mooy yàlla subhanahu wa taala mi ñi fi dajale tax ñi dajee fi moom gis na waaye yonent bi sallallahu alayhi wa gis na waaye borom bis bi cheikhuna ahmad tijaani sharif gis na kon day mel ni bu ñu tuddaatoo sax dafa mel ni far am na lu muy mën naa am lu mu lu mu lu mu gàllankoor ndax ñooñu bu ñu gisee doy na ma ngoog li wax rek moy ñaar ñi ngeen gis xalé def ko ci seen yiri yi ñu sol xalé bu laan ànd ak ñom la ci jotaay bi ñukoy tuddé ñu ko lan wax Moussa Kan ma ngi ñaan kenn ku nekk fi mu nekk mu def fa fatiha ñetti qul wallahu ahad ñaan borom bi mu ma dem ci mom waye hitam ak keneen ki nekk ci wet gi mu lo nekkon ndey dara ja li may wax ci moom rekk mooy bi ma ko tàggoo yoonu màkk dafa yuuxu ci téléphone bi ne woy woy woy kii njëkk na ma ndeke moom boobu mi ngi dox ci suuf pour yóbbu ma màkk loolu rek doy na kon ñi dem ci waxtaan wi ginnaaw bu ñu rafetloo li fi jàll yépp nag Cheikh Moustapha commencé ko ci xaaji ah, mbay jóg moom comme ni ma ko koy faral di waxee moo ko depuis ñi commencé ko ba léegi mosul tardé ca première fois ba mu ngoog ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye daal li ma wax noonu ma bañ koo yàq mooy ñu bàyyee borom bis bi nga xam ne gis na ñëpp ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu ngoog mu nangul ñi lépp rek ndax moo ci am solo euh, waxtaan wi nag danañ ci ñëw tuuti ndax dañuy wax ne dañu war a xam ne taalibi cheikh waxoon naa ko fi daaw garaat bu mu mënta dégg gars yi di ko wax ci mbedd bi su ko yëgee su ko yëgul am na ko sëñ bi yëgoon ne taalibi cheikh bu nekk wasifa wu nekk ni salaatul faatixi toll ñaata la ci wasifa juróom fukki yoon dana rañaan juróom fukki yoon est-ce que rañaan am na lu ko gën a rëy booy jàng siira li ñuy wax ne mucjisa bi gën a rëy ci mucjisa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy rañaane gi mu rañaanee woon waaye saa yooyu wasifa yëgal ne danga rañaan juróom fukki yoon ci fi nga toog waaye saa yooyu wirde danga rañaan ci wirde wi téeméeri yoon waaye beneen bi ci topp mooy saa yoo wirdaa ba pare wala nga wasifa ba pare yaa ngi ci amee juróom fukki julli juróom fukki julli yu yàlla nangu yoonu juróom fukki julli yu yàlla nangu julli farata la boo wirdaa ba pare encore danga ca jëlee téeméeri julli farata yu yàlla nangu ma nga loolu est que am na ko ko gën lu ko gën a rëy amut moo tax dangay gis ñu baree baree bare danañ jël tariqa bi waaye xamuñ tariqa bi ndax jël tariqa bi ba pare jàpp ne am na leneen lu la a mën a yeggali ci yàlla lu mooy tariqa bi saa yoo ko gëmee dagg nga ci tariqa bi ndax boo gisee ñiy wax ne bul boole tari bul boole wirde yi wirde bi yenent bi jox seydna na radiallahu taala anhu mboolem ku yegg ci yàlla bokk ci tariqa bi ci wirde woowu ci nga yeggee ci tariqa bi du beneen tur du beneen beneen beneen beneen wir donte mën ngaa am nag yeneen yoo xam ne danga koy naafila li may tijjee rek mooy tariqa bi war nañ xam lan mooy jubluwaayam ci nit ki tariqa bi lan la bëgg ci nit ki lan moy jublu jubluwaayam ci nit ki jublu jubluwaay mi nekkul lenn lu moy mu fóot ko koku ben la ci mu fóot ko te fóot gi qat'an day am da fay am fóot gi kenn du ko deeyaale borom nak mu masalan suluk fay wax ne fa nafu xatmun lazimun fa in zahar fa huwa wa illaa fa damiru listatar mboolem njëriñ liñ ci tudd xat mun wallahi luy am la ci képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo benn ñi teel teel teel la koo feeñalal wala ñi yéex la koo feeñalal bàyyi ba ngay faatu waaye xataan day am beneen bi ci topp mooy fexe ba tijaan bi takkoo takku takku lan lay takkoo ci lépp loo xam ne luy rafetal la ca kanam borom bi subhaanahu wa ci ni ko borom bi bëggee di comme yow ni ko bëggee te borom bi ni ko bëggee mooy nim joxe ndigal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël wirde woowu jox ko Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif saa yooyu jëlee leneen dendale koog moom yaa ngi bokkaale xam nga bokkaale dafa am ci diine ji bokkaale dafa am ci tariqa bi te xale yi ci mucc ci bariwul waaw xale yu mucc ci bokkaale ci tariqa bi bariwut moo tax dañ lay wax ca chartier boo koy jël itiqaad pas-pas lu ci am solo la ku ci jëriñu ku ne foofu nga jëriñoo duñ la jox loo xam ne yenent bi sallallahu alayhi moo ko jox sayidna cheikh radiallahu taala anhu nga gis beneen dog boo xam ne boo koy wirda ci ngay gën a teewlu ndax bu dee ab sekken la ci lay yaakaar xeyna dépense wala sa ci lay yaakaar ab daraja wala sa yakar bu génnee ñu na ah mom kat ku ko xol xamné ki am na lu muy wirde yoyu ñak fayda la yoyu Seydina Cheikh néna moy bokalé kon lolu lu mata baye xel la wirde wii ak ngeeneli ci adi don te du ci xaj dañuy junj rek beneen bi di topp mooy te moom rek ci laay tëjee mooy bëgg-bëgg tariqa bi ci nit ki du am daraja de du am alal de du am ay kasfu du tëdd ci gént di dem ci asamaan si di ñëw du masalan nga mën a dox ci géej gi du ma nga mën a naaw ci jaww ji du dara ndax yooyu yëpp du dara ndax bu doon dara duñ ko téré ci tariqa bi kooku ci mosa gis mu def ko rek jàppal ne ta tax mu def ko suñ mag ñep nak waye li bëgg-bëgg bi ci ci ci tariqa bi ci nit ki moy am ridwanullah alladhi akbaru min ghayri moy am ngërëmu yalla subhanahu wa taala bi nga xam mo gëna mag ci lepp lu yalla bind bu ko jambi xasse am ñi xam ñi xam dëgg yalla ñom dañ naan suñu amé ngërëmu yalla même bon buñ safara ngërëm mooy lan mooy yow jaam bi nga nekk ci ni yàlla bëggee walis ngay nekk ci ni nga bëggee yow nga nekk ci li la yàlla tànnal walis ngay nekk ci li nga tànnal sa bopp li la yàlla tànnal mooy lan wirde wi wasifa bi xadaratul jumaa bi li nga tànnal sa bopp mooy lan aw dogoo xam ne xëy na dem ci keneen jël ko di ko jëfëndiko donte baax na waaye saa yoo ko joxee nu upp li ko wala nga am pas-pas ci ne man na def ci yow lu wir yu manul def ci yow boy wala nga sa kurus xamne ne nek do bokku ci kay koy ñu ci tariqa bi mën ngaa di lu ne man nga tedd di lu ne lolu iblis sebo ko iblis gerak yi mu am fu ko amé fu ko amé ci zikru iblis limu tuddu yalla dom adam ak xaju ci dundu dom adam iblis la wax Allah am ci yalla ta katan gi ko jox min ko amé ci zikrullah ci tuddu yalla subhanahu wa taala waye len rek moko galan kor moy fitirlu baña jëfé ndigal kon tariqa bi jubluwaayam ci nit ki moy lan subhanahu wa taala bobu bu ko defee nag di jaamu yàlla ci yoonu sant ko ci yoonu sant ko loolu dafa am solo lool ñu xam ko beneen bi may jëloon naa charte yi waaye damay bañ bu ma ci duggee mu yàqal ma li ma junjoon léegi mbokk yi bëgg naa ñu teewlu ñun ñëpp lii ñu bëgg a wax waxoon naa ne doxoon nañ fi daaw taalibi tijaan njëlbéenu jéego bi muy séq mooy wilaaya njëlbeenu jéego bi ngi muy siqi mooy boo jëlee tariqa bi donte wirdaa koo waliyu nga ndax waliyu simple nga déedéet fa baydatuhu tubaaxu axi bi alfin fii bayin kalaam loolu mooy ki jël te wirdaawut mi ngi wecci lan junne waliyu yu mag junne laa wax junne loolu ku ko am ba pare di gësu ji leneen wala di yaakaar leneen mooy wallaahi bu la yàlla dimbaliwul doo jëriñ ma dem ci li ma wax te mooy ci jëkleelu wirde wi jëkleelu tariqa bi sëriñ dama ko mën a ko looy jël ren ci waxtaan wi mu ne maa ngi fas yéene jël ci jëkleelu Seydina Cheikh ma ne ko comme ñaar yu ñoo fi am jëmmi Seydina Cheikh ak jëmmi tariqa bi mu ñu bàyyee kon man ma jël lenn ci jégleelu tariqatu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif donte suñu waxtaanu daaw nag aju woon na foofu mu ngoog wax naa ne boo demee ci misaabu rahma dafay wax ne salaatul faatihi boo ko jëlee saa yoo toogee di ko jàng yaa ngi rañaan jëm ci sa borom bi subhanahu wa taala yaa ngi jëm ci sa borom bi subhanahu wa taala nooy rañaanee mu ne xadara yi juróom la xadaratu naasuut mooy lii ñuy dund fi ñuy dund mooy adduna bii ñuy dund boo ci bàyyee ko yaa ngi dem ci xadratul malakut mooy asamaan bi ba as juróom-ñaareelu asamaan boo ci bàyyee ko yaa ngi dem ci aalamul jabarut muy asamaanu juróom-ñaareel ba kursiyu am ñu wax arash boo ci bàyyee ko yaa ngi dem ci xadratu lan laahut muy xadratu asmaa illaahi wa sifaat mboolem turu yàlla ak i melokaanam yaa ci xadara boobu moo tax foofu boo fa yeggee mu nga boo zikk jamono bi ñu koy wax mboolem lu nit yàlla di di di wird ci ismulaayul agam Cheikh Seydina Cheikh xam nga bi ñu koy wax foofu lañ ko dëxëñ boo fa bàyyeekoo nag yaa ngi dugg dugg ci xadratul haahut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy rañaan ndax génnoon na xadara yi déedéet génnatoon xadra yi waxoon nañ fi daaw ne taalibe bi saa yu toog di jàng wirde na yëg ne cheikh jàng du moom waaye na yëg ne yenent bi sallallahu alayhi wa mooy jàng du moom lii la lii mooy mottali wax ci saa yoo jàppee sa kurus te lii nag xam ko di ko teewlu dafa am solo mooy saa yooy wax lii may wax na nga teewlu ne yaa ngi ci yii ma doon wax بنا اللهم صل على سيدنا محمد حضرتنا صوت لنفقا تورو محمد موي ادنا بي ني دوند لنفقم موي تورو يننتي صلى الله عليه وسلم تورم وي ني واخ محمد موم لنفقم اللهم صل على سيدنا محمد رك رك بو يمي فوفو نينا لا تيف في تي كاو سوف يوبل باسي اسمان بو نك بي اللهم صل على سيدنا محمد يوبن لليجي بس أسمان سن بنغرا نان ليجي واي نغرا نان واو نيت صلاه الفاتحه على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العقل بالعقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإبهار عظيم اللهم صل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 സലാത്തുൽ ഫാത്തി അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ യാങ്കി ഫഗ്ഗി ബുണ്ടി അസമാൻ ആലുമ നാസു yaa ngi gis yaa ngi fëggi bunti asamaan waaye aalamul malakut bi nga xam ne mooy asamaan bu njëkk bi ba ci asamaanu juróom-ñaareel kooku ñooñu ban tur moo ban tur ci turi yenent bi sallallahu alayhi wa moo fay dox ban tur lañ fa soxla wala ban tur ci tur tur yi nekk ci salaatul fatihi mu séddaliku ci juróomi xadar yi ñuy wax mooy muhammad al fatihi lima ugliq waaye wal xaatimi lima sabaq waaye naasir al xaq bil xaq waaye wal haadi juróom yi pays boo dem ci pays yi ñu doon wax saa yi ngay jàng salaatul fatihi booy tur woo yegg rek jàppal la yaa ngi ci pays boobu comme muhammad fëgg nga bunti asaman kana ko yegg ci asaman, na yenen bi sallallahu alaihi wasallam don sàkku ko ko ubil mo waral nga ne fatih al fatih moy mi ubbi ndax yaangi topi tank yenen yenent bi sallallahu alaihi wasallam ci rañan bi nga yegge ci al nga ne fatih jëfandikoo turoo ndax ñoom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam turam yi ñuy wax alfatih moo fay daw ci ki xam ne nekkoon ci aalamu naasut jógee fa dem fa alfatih boobu euh, alfaa tixi ñaari li ñuy wax masalan ñi nekk ci tëddal lii ak ñi nekk ci taraqi fa la ñuy dajee ki waxoon salaatul fatihi ba ci wal haadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaari al azim kooku mu ngi ci xadratul haawut buy dellu siwaat di wax allahuma salli ala sayidina muhammadin ci lay tombe ci lay dajee ci lay dajee ki doon kii soog a wax allahuma salli fan la ñuy dajee ñi ngi dajee ci taaxu taax bi alfaati kii di yéeg kii di wàcc allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaati gis nga alfaati lima uxliqa ñaari baat kese la asamaani juróom ñaareel lu muy dëgër dëgër diggante lu ñuy sore sore al fatih lima uxliqa ñaari baat yi rek mo leen tijil juróom ñaari asman yëpp dama ne al fatih lima uxliqa ñaari baat yi bokku tak nga dem masalan benn waay jox la masalan ngay fanaan ci kurus ba bët set fekk lam la jox noonu al fatih lima uxliqa kese mu mu mu la juróom ñaari bunti asman yi الفاتح لما أغلق بمن الفاتح لما أغلق جنن أسمان يروم نعيل جنن حضرة الملكوت لويتك والخاتم لما سبق والخاتم والخاتم لما سبق نتاخ باتو خاتم نيو فوف ndax yaangi jeexal alamul di dugg aalamul jëbarut te foofu fa lañ tëjee mboolem li yàlla bind su ko defee nag nga soog a dugg ci ñaari pie yi nga xam ne mooy haawut ak laawut moo waral alxaatim ñëw foofu ndax danga sàkkoon ñu ubbil la ñu ubbil la juróom-ñaari bunt yëpp nga dugg bi nga duggee bay jeexal nag moo waral nga indi alxaatimi ndax alamul jabarut ñom turu yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñi wax al khatim mom mo fay dox ci ko xamne dafa baye ko won nak ci alamun nasul moy alam bi nga xamne ñun mom lañuy dund wal xaatimi lima sabaq legi kon ñaari baat yi rek ubil lañ né juróom-ñaari bunti asamaan yi yaa dugg nak aalamu aalamu alha lahut lahut aalamu lahut lufa lufa lu fa jaam soxla lan la fa jam bi soxla ta moy yaangi baye ko ci aalam moy monde yi nga xamne mom la yalla bind yaangi di dugg ci benen monde bo xamul lo fa soxla ناصر الحق يان فاي سانكو ناصر الحق موي كيغا خامني مو ديمبالي مو ديمبالي دك بولا نيهي غاني مو ديمبالي يالا تي واخيل واي بالحق تي القران الكريم ناصر الحق nga gis ne naasir al haq bil haq rek xadaratu al asma wa sifat ci ñaari baat ci nga ko dagg fi nga toog ci ñaari baat yooyu xam nga mën ngaa jël masalan yaa latif di ko liggéey million bu la neexee wala nga jël turu yàlla wala neex ci turu yàlla yi di ko liggéey ay million gis nga naasiril xaq bil xaq kese baat yi naasiril xaq rek ñaari baat yi يبنى حضرة مولم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته مولم تري سن برمي سبحانه وتعالى أم مولم ملوكان سن برمي سبحانه وتعالى يانكر دق جناصر الحق نعي بانيو يكسر موتا شيدنا شيخ يانكو يجنجلق شيخ مصطفى آه الله أكبر yàlla yàlla nañu yàlla xamloo li nekk ci salaatul faatih ma nga imaam Mahdi moom mi ngi ko doon junj léegi ci yaakaar naa ci bëccëg yow boo duggee ci foo foofu naasiril xaq ndax dootul yow yenent bi la jamono bi mu koy wax dootul yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la naasiril xaq bil xaq léegi nag génn nga aalamul naasut dem ci aalamul malakut jërëjëf dem ci aalamul dugg ci aalamul laahut mboolem tur yàlla yi te waxoon naa ko fi waxoon nañ ko fi daaw nit dund na téeméeri at ba faatu te wéetal benn turu yàlla rek wéetal benn turu yàlla rek amul ko wéetal benn turu yàlla rek amul ko ma joxe ci misal rek allahu al mu'ti lu ci turum yi la bok yalla ay joxe est ce que tur woowu li mu làmbool ci tawhid ñun ñep gëm nañ ko est ce que ñi ngi doxal lool ne mboolem lu way am yalla la ko jox lu keneen am yalla ko ko jox ngëm ji yalla sappu ci yow nga def ko ci wo est ce que def nga ko soko amé rek añaan génn nga xam ne lu waay am yàllaa ko ko jox tur woo ñuy wax ar razaq yàlla miy wërsëg ak wërsëgal ak kon yàlla seet na benn jaamam wërsëgal ko alal wala mu wërsëgal ko wala mu wërsëgal ko pourtant yàlla ñépp la wërsëgal wolof nag moom mooy wax ne wàlla ku yàlla ku ñuy gisee ñun ñu ne yàlla wërsëgal la ko pourtant yàlla ñépp la wërsëgal c'est que wërsëgee wuutee même ci amul alal yàlla wërsëgal la ko lan la ko wërsëgal lan la ko wërsëgal ñàkk alal ñàkk alal wërsëg la waaw ñàkk alal wërsëg la ndax lu tax mu nekk wërsëg alal da ko layoo ñàkk gi nga ko ñàkk doo ko layoo nit lu mu ñàkk du ko layoo bët yi ñuy xoolee dañ ko layoo ëllëg ki ñàkk bët du layoo ëllëg ci bët kon ki yàlla jox bët wërsëgal la ko ki mu xañ bët la gën a wërsëgal ki yàlla jox xam-xam wërsëgal na ko waaye ki yàlla xañ xam-xam lurul ay faataam moom la gën a wërsëgal ndax bu ëllëgee danañ la téye ak foo noo defoon ak sa xam-xam loolu nga jël ko ba juróom-ñeenti tur yépp jeex wala juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent ak li mu làmbool yépp yaa ngi koy dagg ci naasiril xaqi kese léegi génn nga Di bi nga xamne moy turi suñu borom yi subhanahu wa taala yaa ngi dugg nak ci payu suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamne ne bu ñuy wax ci mu neexa deg moy jëmmi suñu borom yaa ngi dugg ci jëmmi suñu borom yi subhanahu wa taala pourtant gis nga ñi wirde di wirde di wirde ak ñu wirde ba ba ba def li ñuy wax fanaaw bay fekk ci nguy bax nga di nan te dara doo doo yëg tàngoor yi wala sax nga mën a dem fekk dex gi léegi nga jaar ci ci ci kaw fa mu yegg mooy fanaa ullahi subhanahu wa taala yow ba ne naasiril xaq bi xaq wal haadi wal haadi wal haadi rek baat boobu rek wal haadi yow dugg nga ci zaatu sunu borom bi subhanahu wa taala waaye nag mandi woo lu tax mandi woo ndax du yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dara dikkal ko ba mandi ba wax loo xam ne tey dañ naan lii kat moom ba téye gri saa yoon bi nag foofu boo waxee wax lu ñëpp téye seen gimi foofa sekk duutoon du nekkutoon nekkutoon nekkutoon bi waaye yow la woon moo tax waaye bu dee yi si wal jàppal ne def nga yegg nga ci maqaama fanaaru waaye nag masalan yaa ngi ànd ak sa xel yaa ngi ànd ak sa lépp yaa ngi ràññee moo tax ñun li ñuy am cheikh daf ko segg ba muy dugg ci yaram borom du ko yëg ah borom du ko yëg ah, gis nga loolu ñuy wax perdition xamal lu ñu koy tuddee xam nga bu ñu jëloon ndox mi luñ la war a sol yëpp ñëw dugal ko ci gémmiñ gi benn yoon nga góox ko ndor benn yoon boo moytuwul mën nga faa jaaree waaye ni muy jaaree par toq di dugg nga xam ne mën nga koo ñàkk yëpp lool bu sama jaayu saa yu koy jëfandikoo noonu ngay mel. léegi may laaj salaatul faatihi bii benn soo ko ci waxee dagg nga xadaraat yi yëpp. dagg nga ñii yëpp te yii nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaanee woon bi muy rañaan waaye waxoon naa itam ne salaatul faatihi boo jàng ci wirda wala ci wasifa benn bi laax benn bi mi ngi ci juróomi julli farata yu ñu nangu waaye ci charte nag kuy taxawal julli ndax mooy aslu nit ki bu jullim taxaw bu saxul bu jàngee salaatul faatihi dañ koy jéppi ndax dañ naan ko demal def li la war ba pare moo tax charte tariqa bi awalan sharia moom moo ci jiitu da ngay ñëw ci jullik suba jullik suba ñaari ràkk lañ fa miin di ko lañ koy jullee jullik suba mi ngi tombeek baatu isturu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy wax muhammad muhammad mi ngi séddaliku ci li ñuy tuddee maxwu wala maxaa ak maddun bi firi tëbb kon ñaari ñaar ñaari baat la yu am ñaari xaraf moo indi jullit suba nekk ñaari ràkk ñaari ràkk léegi nag xam nga yenent bi nee na ñaari ràkk fajar moo gën àdduna ak lu ci biir mu ngi noonu saa yooy jullee julli ñaari rakk ñaari ràkk suba yi kese julli woo ñaari rakk fajar yi benn benn benn euh, kii nga am euh, ñaari xarafu muhammad moom nga am soo jullee ñaari rakk fajar julli ñaar ñaar julli julli julli suba julli suba nag bu ko defee tur bi daal di complété foofu itam nga ñëwaat fi boo de allahuma salli ala sayyidina muhammadin am nga jullit suba gu ñu na la nangul Muhammad yaa ngi ci jógee ko ne alfaatixi am nga tisbaar bu ñu la nangul alfaatixi li ma wal xaatimi li sabaq am nga ci jullit tàkkusaan bu la nangul wal xaatimi lima sabaq xam nga Seydina Cheikh nee na sala julli julli tàkkusaan mooy salaatul wusta mooy salaatul wusta te salaatul wusta moom moom mooy yéegee boppam witr du ko yéegee ngir doole ji am moo tax lu tax dangaa jëfandikoo alxaatim ndax dangaa pare moom moo tëj lu tëj nag dafay dem du xaar dara lu tëj dara du gàtt moo tax julli tàkkusaan kese day yéeg boo ne wal xaatimi li sabaqa am nga julli tàkkusaan guñ la nangu naasir al xaq nga wax ka rek am nga julli timis guñ la nangul wal haadi ila siratika al mustaqim am nga julli gexe gu yàlla suñ subhanahu wa taala guñ la nangul kon nga di ko jàng juróom fukk yoon ci wirda muy ñaata julli yu ñu nangu ah ah ci benn wasifa laa wax waa benn wasifa ñaata julli juróom yu ñu nangu daam lu ma soxla foofu juróom fukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaata julli lañ joxoon ñaata julli la jëlee woon juróom fukki julli sëñ bi ñun kii mënuñu ko fay إن الصلاة هو مملوكا لا أخي moo tax kon wasifa doole ji foofu la génn li yàlla fi yàlla di takkal fi yàlla di takkal gaayam yi gaayi tariqa bi ci wasifa ak ci xadaratul jumaa rek lañ koy amee الخاتم لما سبق ناصر الحق ياغي نيو ñëw ci timis wala haadi yaa ngi ñëw nga xamne ben benn bo boo yàlla bindal na la yoru ku julli juróom fukki julli yeb ya ya borom bi joxone ah ya borom bi joxone yenent tibi sallallahu alaihi wasallam yonti yàlla Moussa ne ko sama xeet yu mënuñ ko waaye terewut am na ci nit yàlla yu koy julli yow saa yoo wasifa bindal nañ la yoonu ko julli juróom fukki julli yooyu waaye loolu boo ci ñëwee itam ci fii nit ki di dagg ci wàllu boppam yàlla dafa bindaat juróom yoo xam ne mooy nekk ci doomu aadama bi mooy an nafsu wal qalbu wal aql wal ruuxu wa سيقن ننغ اللهم صل على سيدنا محمد قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ني بيندل ني بيندل شي ديوان نيغا خامني نيوم لا يالا وخو ن قد افلح من زكاها ci deug deug deug texena ñi nga xamne ñom seen xol yi yalla setal nako ci mboolem taq-taq yi nga xam ne ku ko ku mu doo dugg moom aljanna loolu ci soo am ci ñetti baat yi allahumma salli ala muhammad waaye boo ci bàyyee ko yaa ngi duggaat ci xadratul malakut ala sayyidina muhammadin alfatixi li ma uxliq mooy maqaama alqalb xol xol dañ ko tuddee xol comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa ngir ne dafa bëri lu muy wëlbatiku xol dafa am lu yàlla soxla ci moom nit dund na ba faatu te xamu sax xolam lan la ci yàlla soxla boo ne alfaatixi li maa uxliqa ñi bindal la ñi bindal la nga bokk ci ñi yàlla baxé lam leen laaj ci seen xol ñu jox ko ko ndax ciir bu nekk ci doom aadama am na lu yàlla am na lu ko yàlla laaj alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaq mooy xel xel dafa am lu yàlla sàkku ci kenn ku nekk ci sa xel te nit dund na ba faatu te xamul lan la yàlla sàkku ci xelam te bu ëllëgee bu dajeek moom yàlla dana ko ko laaj nga ne alfaatixi li ma xuliq yàlla bindal la mbooleem loo xam ne boole la ci ñi nga xam ne duñ leen topp ci seen xel ci ñaari baat wal xaatimi li ma sabaq nga dem ci ruux Roh ñun ñep kenn ku nekk bi ngay ñew fi ci aduna sa roh dafa mandi won ci maarifa dafa mandi won ci maarifa moy xam sunu borom subhanahu wa taala ci xam ganam ko soxlaa nam ko bëggee waye roh gi bi mu ñewé dugg fi ci aduna roh yu bari ci lañ fàtte ba buñ jangul fatiha duñ ko xam buñ leen wax buñ leen dëkk am na ñoo xam ne dañoo fàtte spécial am ñoo xam ne nag dañ leen di fàttali dañ leen di fàttali mooy dañ leen di yee rek ñu ñëwaat te ruux boobu nag la yàlla sant ne kenn ku nekk booy dellu ci moom bi ngay ñëw fii ci àdduna ni mu ñàkkoon a booy dellu ci moom loolu lañ la santee nga yóbbuwaale ruux boobu noonu ndax ndénkaane la ki la dénk soxla ko saa yu ko soxlaa nam la ko dénkee woon danga ko ko war a delloo kon sa rox boobu booy dellu ci borom bi nim nim ni mu wàccee woon fii ci àdduna noonu nga ko war a delloowee ci kanam borom bi subhaanahu wa taala boo ne naasiril xaq ba tey gisoo du yow moo tax naasiril xaq bu ko defee borom bi subhaanahu wa taala du la topp ci loolu dara waaye dafa am leneen lu gën a nëbbu roox ñu koy tuddee asirru loolu it dafa am lu ci yàlla sàkku ci jaam bu nekk te doomu aadama bu nekk am na ko te bëri na borom xam-xam bu dund ba faatu xamul lan mooy sirru boo xamul lan mooy sirru lañ la ca laaj est-ce ko xam da nga ko mën a joxe boo ne wal haadi gisoo yeneen bi nga jël mu nekk sa gidi mu lay gindi bëriwul. والهادي إلى صراطك المستقيم muy juróom juróomi juróom yi nga xam ne mooy ñëw ci ci ci ci ci ci ci ci ci salaatul fati boo fa jógee ko nga ñëwaat ci tawba tuub muy xadaratu naas suub encore boo ne allahumma salli ala sayidina muhammadin yàlla nangu na sa tuub bindal na la am tawbatan nasuuxa tawbatan nasuha mooy tuub gu yàlla na nangu gu sell allahumma salli ala sayyidina muhammad rek am nga ko yi may wax nañ ci salaatul faatihi yaa ngi koy amee ci wirda wala wasifa mu pour mu leer ndax foofa ngay nekkee yeneen bi jamono bi nga koy jàng wala nga ne foofa ngay nekkee Cheikh Ahmad Tidiane Chérif jamono bi nga koy jàng mu boo jugee ko ci taw ba gars yi yàlla yi buñ ci jugee ko ñi ngi yéen ci maqaama bu ñuy tuddee istiqaama bi nga xam ne moom la borom bi waxoon yenent bi ne ko fastaqim kama umirta baat boobu tax na yenent bi bi jaaw te yeggagul ci aas bi mu war a bi ca seen aada ñoom ngir tiit gu ci li ko borom bi wax fastaqim kama umirta neel temm comme ni la ko yàlla digale loolu lo xamne ne yonent bi sax da ko tit ba mu béy jaaw kooku keneen kurul yonent bi fan nga jëm ala ngane allahumma salli ala sayyidina muhammadin ngane al fatih lima ughliq ñi may la is bindal la masalan kuñu ko bindal la ci diwanul istiqaama waye al ikhlas moy selal bi nga xamne ñi ci mucc bëriwul te mooy lépp di yàlla sa lépp di yàlla wal xaatimi sabaq am ko boo jógee ci ixlaas sellal yaa ngi fay jógee ko dem ci lu ñuy tuddee muraqaba mooy di fuuglu sa borom subhanahu wa taala martaba la ci martaba gaay yàlla yu foor yi yow miy wirda donte ci bëti nit ñi da nga lo ñak ñak dara di ci sa gis-gis yow maqaama muraqaba boobu sa yo waxe ne wal lima sabaq nasir al haqq bil haqq nasir al haqq rek ñaari baat yoyu borom bi subhanahu wa taala bindal la ci diwan bu donte yaa ngi lek di naan di def lepp nak waye al mushahada nak moy bi ci dak moy di gis sa borom subhanahu wa taala ci waxin li ni wax gis yalla fofu la rek sa yo ñëwee ba ci wal hadi yenent bi mo and ak yow di gën bi nga gis borom bi subhanahu wa taala moy al mushahada fofu la gaay fofu lañ yam kuy dem ku ci fofu lay yaa nga yëg mushahada mushahada mooy alamul haahut bi nga bi ñu wax nga xam ne mooy pi jëmmi sunu borom subhanahu wa taala boo duggee ci kër ñu ne la am na jëmm ju fa nekk nga dem dugg ca place ba mu nekk lan moo fay dox lan mooy dox sa diggante nga teg sa bët ci moom lan moo koy kooku mooy maqaamul mushahada kon ku ne la gis naa yàlla man bu la jaaxal de bu la jaaxal bu mu la teree nelaw saa yoo yeggee ci wal haadi ila wal haadi rek wal haadi rek laa wax wal saa yoo Iya ma ngok yegal nañ ci maqama kuy gis borom moy maqama maqaama bu yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ci ihsan an taabud allaha ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu ya ci juromi xagar yu xamna kom waxtu bi mi ngi jégué ci ta qasida bi ñu programme dafa guddu damay tëjee fi may tëjee moy juromi xagar yi ci wa tariqa bi dañ ciy defee masalan euh, euh, euh, nu mu tudda ci tarbiya ku mu neex nga jël ko mu nekk sa tarbiya ci waxin waxuma nag comme li ma doon junj léegi de lii dafay topp wirde wi ndax ci salaatul faatihi la génn ci salaatul faatihi ci la génn mooy juróomi xadar yi ñu doon wax bu la neexee nga jël ko ci ñetti waxtu mu dëppoog lañ waxoon ndaaw muy alwilaayatu wa nubuwatu wal uluhiyatu jëlal lim bu la neex ci salaatul faatihi nga dëggal liggéey ci juróomi waxtu nga tànn ko bu la neex wala bu la neexee nga jël ñetti waxtu mu nekk ci ci ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti xadara yooyu ñu waxoon waaye yooyu yëpp taalibe tijaan daal boo xasee jël wirda wirda way jëfandikoo ci na nekk jaamu yàlla ndax Cheikhuna Ahmad Tijaani Sharif def ne li mu tariqa yi jëm ci yàlla wala li mu tariqa yi yoon yi ni roox mi ndéef yi toll noonu la toll ba ca dàq nag gën caa noppale amul ay sàcc ci yoon bi amul ay agresseur amul ay kàmb amul dara amul benn lenn lu lay yàqal موي مثلا الطريق جز بالرباني تنول الطريق بي دوخي بهمة أو بحال حاز تربيط جريجف إلى خلوة ربا وربوا بخلوة فشتان ما بين اليزيدين من هلا لقد نتيم كنجر تبريلو غيتي كنا مرمي سبحانه وتعالى waye bo jele bo jele ba jëmmi sayu ci misal moy yow ndakaaru mo la soxal ndakaar ndakaar nga bëgg dem ndakaar ci waxin ci yalla nga bëgg dem ñi jël la rek pele ci yalla sa yoon ci kawla sa yoon ci mbu ndax yoy taxut la ñu yoy taxut la ñu motax leg leg léeg bi masalan di wir de xeyna genti ngay gent leg leg gentiya ya dana bégloo ta way gént yooyu masala li ngay romb la li ngay romb la rek ni ko melni nga dugg ci auto jëm Dakar kaw nak rombo Mbour rombo rombo rombo romb waaye yooyu taxul la yoy yalla mo la tax jóg te karet bi nga jëlee tarixa bi te wir go ci nga am jës bu rabbaani kon waxtu bi tank na dañu dem ci li nga xamne ne moom lañ tàmmoon di def ko ko defee ñi teewlu bu baax ndax cheikh ahmad tidiane sharif ko am ko am ko am ko am fulla la bo gisé ma lañ wax ci ngoon li ma lañ wax daf ma ba may ba may bind alfie ba dama tok ba yegg fenn rek yalla dogal man dal am ñaar yu ñew rek ñama dañ la soxla mosuma leen gis na ma yegg ak ñom ci maktab bi ñu yëkkati benn yére bu rafet ne ma am ma taxaw fa di ñaan ak yoy ñu won ma ginaaw de ah yéegu ban dal bañ demee dal ba nga xam ne gisatuma leen sama xel ne yar soog a ñëw yére boobu maa ngi ko yore nag samay soxna sax xamuñ ko way cheikh mako jox ci ci biir ci ci ci ci ci ci ci ci li ma koy bindal bima fi defoon daw dama ne dama ci don ñaan yalla la sayyidna Kaabu amoon ci yeneen ci bi ma am ko ci sayyidna Cheikh ci Cheikh maa la warlu yere bu la neex ci senegal loolu moo koy wax du jëmmi du jëmmi mbubb waaye lu bàyyee ko ci sayyidna Cheikh mooy lañ ci doon ñaan sayyidna Cheikh radiallahu taala anhu nangul nañu ah li gay wax lo mas mu neex nak doo ko bàyyi ma bi yoon moom damay jël burda burda bi nga xam ne mooy dëgg dëgg mbub mi na bu ko defee ñu teewlu ko ndax gëm nañ ne mi ngi ànd ak ñun euh, di ñaan liñ ci dëxëñ yépp bu kenn nammee ñàkk yal nay man ci képp ko fi teew bu kenn nammee ñàkk te kenn du ñàkk gëm naa ne yàlla danañ ko solal fii danañ ko solal ci biir aljanna moo ko kon waaw waaw waxtu bi waxtu bi xëy yaatu na kon ma liir ko liir bu gaaw rek ñu commencé itam fii borom burda commencé woon ngir barkeloo ko waaye ngir yàlla subhaanahu wa taala yéegal xasiida bi ci xasiida burda boobu di wax ne amin tadakkuri atlaalin ala alami tudri dumuan taxaddal qaxtaka diyami am riixu shawqin laha habat mu نار الهوى قد كوت كبدي على عدمي أم ومض برق خفى ونحن في بردة يرود فينا بريد الخير والكرم بين الجنان وأصحاب الجنان لهم حب يوصي لنا من أطيب النظم قطوفها قد دنت لكل نازلها روح من الحب في نور من النعم لا يعرف الحب إلا من تقمصه إبريق حب على المستوقد الدرم فالحب أوله ظنا وآخره موت وفيه حياة الحب والسلام وفيه حياة الحب والسلام يمشي بخطوته للموت مبتهجا من عبرة وضنا والسقم والشبم فالحب إن لم يمت دعوا يصاحبه جهل وغمر وداء غير منصرم فكيف تدعو إلى حب وخمرته وأنت تنقاد نحو الصحو باللجم دع عنك يا لائمي في الحب تنصحني إني عن اللوم والجهال في صممي النفس بالدمع قد خطت مسودة من الخطايا التي أسلفت في القدم والنفس جرت سيول الغيل جامحة في غرة من هواها قد لم تنمي ونفس أمارتي بالسوء غائقة في غمره خبت عشواء ولم تهمي قد راودت غيها نصبا مراودة والنفس في البيت قد همت ولم تلمي والنفس لا تتلي بغيا وعربدة والغصن رطب ولين أسود اللمم لم تستفق من سبات الجهل ليلتها حتى تلألأ نجم الفود كالثقم فصار رأسي بنار الشيب مشتعلا والحمر بالطيب قد ولا ولم تدم فبان للنفس أن حقت خسارتها فبان للنفس أن حقت خسارتها إن لم تدارك ولم تسبغ ولم تسم من يد شيخ كريم ماجد ورع طب مرب مرق طيب حكم يوصل عبدا إلى المولى مرقيه أعلى مراتب أهل الله بالهمم يحيل فضلا نحاس نفسه ذهبا بنظرة أو بحب أو بمبتسم وذاك أزكاهم أصلا وأطهرهم فرعا وأرضاهم لله ربهم وذاك أطيبهم تربا ومحتدة وذاك أرحمهم للخلق كلهم وذاك شيخ التجان ختم ملجأهم وبحرهم مددا يسري إلى النسب على ازديادك شمس الحق قد بزغت وحم وعم كل الورى من ضوئها العمم من أطهر الناس طرا عائش ومحمد وأحمد خير الأهل والحشم لله لله نور الحق منتشر والكون ترقص من معنى ومن كلم يوم به ضاءت الأكوان وانفرجت عنا الضلالات والإبليس في الغمم يوم به اهتزت الغبراء من فرح فأخبر ذلك الأعوام للكرم بعين ماض أتت ذي الشمس مشرقة أكرم بها شرفا بالنون والقلم تزين عالم الأرواح في سفر وعالم الملك إكراما لمحترم أنخذ كل الورى من قعر هاوية وهم في الأغلاق من جور ومن ظلم إن العلا إن العوالم قد باهت مهنئة من نورها بلسان الحق ذي القدم أولو البصائر والكشوف قد علموا بأن ذا النور نور الأصل ذي الوزم قد علموا أن للمولود موهبة توحي لهم ما يكل الكل من عظم لله شيخ أتاه العلم يطلبه في مهد مجد وسر اللوح والقلم لقد تعانقت الأخلاق أجمعها في مهده كي تحوز الفخر بالمعم كل المحاسن من أخلاقك اكتسبت فذاتها أنت يا مكتوب في الأمم والخلق زينهم خلق كذا أدب وأنت زينت ذات الخلق والشيم به سبقت رجال الله واصطنعت فيك المكارم من عرب ومن عجم فاستبق الخلق للخيرات يطلبها وأنت مطلوب هذا الخير في القدم فكل ما ناله قطب مجاهدة أتاك في صغر يا أصل بالرسل علمت بالغيب كل الخلق منفردا إذ من, إذ من علومك علم الكل والحكم فمنك ينباع فهم الكل واجتمعت فيك الأصول بلا ريب ولا تهم لله درك من شمس الهدى طلعت فصار من كشفها الرموز كالنجم والمعضلات من الآيات قد بزرت قد برزت حتى يراها العيان العمي كالجلم كذا أحاديث خير الخلق جملتها كشفت جلبابها في أذن ذي صمم لله ضرفة في طيه شرف من المكارم والأحساب والهمم قد جاب في طلب الرجال مجتهدا كي يشتفي غلة بالراسخ القدم وأيقن الكل أن الشيخ سيدهم إذا كما كتب الإله بالقلم لكن يعاني بما عاناه من ظمأ يمسيه عن كل ما في الكون من نعم فالأرض تعرف أن ذاك ديدنه في الحق لم يثنه شيء عن الأمم فكيف يسقونه وهو ممدهم أم كيف يعطون ما ليس الأخي بهم أم كيف يرجى من الجلمود ساقية لكنه كي يفيد الخلق بالرحم لم يشعروا أن هذا الشيء قد تصحبه كل المعارف تروي الكون بالسلم لم يشعروا أن هذا الشيء قد تحمله كل المعاني التي دقت عن العالم لم يشعروا أن ذاك النور أنزله الرحمن كي ينقذ الأخلاق من حطم نور به عالم الأقطاب قاطبة قد حاولت فهم معنى النور لم تشم لكنه ما قضى الإله من أحد الفتح إلا بأيدي الجد ذي السلم فحقق الله في شيخ فراستهم حتى تربع الكرسي بالخلم فسورة الفتح قد أتاه مرتقبا فيا له بأبي شمغون ذي العظم بأن يرى العين عين الخلق سيدنا من يقظة زود الشيخ من الحكم فكل رؤية خير الخلق قد سبقت فإنما مهدت هذه بلا وهم كل الفتوحات للإقوام للأقوام قد وقعت فإن من اتصلت من فتحك الكرم كل الكرامات في الأكوان قد ثبتت فهن فرع وأنت الأصل ذو الوزن لبيت ربك قبل الخلق فانخضعوا فصرت واسطهم يا شيخ ذا العصم كنت الممد وكنت الخاتم النقبا وآدم الأصل بين الطين والنسم ربيت كل ولي الله في أزل فانخضعت نحوك الرقاب للقدم فالله معتن وأنت الخاصم النجبا أنت الصراط وأنت الغيث للأمم فقت المزايا وفقت الخير تجمعه فقت المكارم فقت الدهر في الهمم فالأمر أمرك والأوقات أو وقتك والفتوح فتحك يا عين, عين النصر في القدم دوح الولاية كل الأولياء معا ذو التعلق بالأغصان معتصم فأنت شمس وكل الأولياء شرفا كواكب تكتسي الأنوار من عدم كل الولايات والآيات قد ظهرت فأنت مصدره يا جمع للحكم فرب آكل الثمار عن بعد لم يعرف الأصل إن الله ذو الكرم ما في البسيطة من لم تسقه كؤسا تروي القلوب وتهدي القوم في الظلم لله ورد على أسس التقوى ومعرفة بينت نهجا قويما غير منعدم ورد به حاز ما قد حاذه النقبة من الفيوضات عمت كل مستلم ورد من النور رب العرش أكرمكم به فطبتم على بطن ومختتم ما زال معتكفا بالله مغترفا كل الولي بذي الأوراد متسم لله ورد أتى للقطب مدخرا كي يختم الله كل الورد بالنظم يكفيه أن رسول الله رتبه حرفا بحرف بديعا غير متهم يغنيك صاحي ولا يغني سوى فعذا قد جاء نسخا لكل الورد في الأمم يكفيه أن إله العرش قد جمع الخيرات كلا ففاز الأهل ففاز الأهل بالعصم لم يأت مثلا ولا لم يأت مثلا ولن يأتي به أحد لأنه لأنه ذات فضل غير منقسم فالفضل عند القدير عند القدير قد يخص به عبدا يشاء لا تعقب حكم ذي الحكم فالله أنزله نورا لذي بصر يمشي به مستنيرا داجي الظلم طريقة ضمن الهادي لصاحبها فتحا مبينا وأمنا يوم مزدحم لله ورد أتى يحمي لقارئه من الكبائر والغمات والوصم يكفيه تربية فيها وترقية لحضرة القرص والآيام للقمم بيت الولاية بالورد المريد أتى وبالوظيفة للنبوة العظم إلى الألوهية إلى الألوهية المريد يفتحها بحضرة الجمعة الفضلى فيغتنم فهذه حضرات الكون يرتعها كل مريد بأرض الذكر متسم فيا له لمريد الشيخ خطوته أولى الولاية فضلا غير منصرم لذا تفيض فيوضات الإله على من بايع الشيخ دون الخير فالتزم يد تبايع بالورد مبايعة قد بايعت خير خلق الله كلهم لذاك تاركه عمدا مهاونة يغشاه إن لم تتب ilam tatub khusrun ma'an nadami wasa'iqun li sa'adati yasuqu ila hadhi tariqati aqwaman fatastalimi tariqatun baydatun minha kama alimu bi wazni alfin min ar-rijali la tanami buntu bu mujibi mom lañuy tawassulé ci sayyidna cheikh ndax ci saanu qasida bi bamuy tej burdu ya akramal khalqi la wax kon ñu wax ne yaa akramal awliya maa lii siwaaka gadan kun lii mujiiran maa al ahbaabi wal xashami هذه يد تستجير اليوم من فزع بما جنت فاحتمت شماك يا معمي الأولياء وإن قلوا وإن كثروا منك استمدوا ومنك النصر في القدم ألست بابا وحيدا للنبي فمن أتاهم من غير هذا الباب لم يسمي كن لي وللقوم يا قطب الورى سندا يا أصل أركان هذا الدين والسلم إني فقير وقير جئت معتكفا بالباب عاف لجدول منك والكرم ألست أجودهم بلا وأسرعهم سقيا ونصرا لملهوف من الغشم ألست أجودهم بلا وأشرفهم يا عين منية هذا العبد ذي الجرم ألست أحسنهم بلى وأرأفهم وأرأفهم بكل عبد ذليل ضل في الحلم يا من نهاية كل القطب في بلد بداية لمريد الشيخ في الأمم يا من إذا هام في الأوهام طالبه ياتي تداركه في الحين بالحكم كم نفحة منك يا مولاي قد برزت حيت بها عالم الأرواح في الرمم كم جاهل قد أتى فراحا منصرفا بحرا خضما حكيما مزبل الحكم دارك عبيدك دارك عبيدك عبيدك دارك عبيدا دارك عبيدا حليف الباب قد طرقا دارك عبيدا حليف الباب قد طرقا فجد عليه بوصل منك في الحرم فأدنه من جنان الوصل يانعة فأجنه من جنان الوصل يانعة ومن معين حياة الخلد والنعم يا نقطة الباء يا رمز الوجود ويا ذكر يرتل بين العرب والعجم يا آية الفضل بين القلق قد ظهرت أفنانه ورقا غدا من الشيم ومن يحيل الحصى بنظرة ذهبا إن لم يكن شيخنا التجاني ذي الحرم ومن يربي المريدين بهمته إن لم يكن بأبي العباس ذي الوذم ومن يرقي المحبين بنفحته إن لم يكن قطبي المكتوم ذا العسم ومن هو الجمع والتأييد منفردا إن لم يكن أحمد التجان ذا الهمم يا توبة النصحة عين الإنابة والخوف الرجاء وسر الكون والأمم يوحنا الجسم والروح والأجزاء خاتمه ممنوحة لأبي العباس ذي الكرم إليك ما قد تقل النعل جملته فاقبله قطبي في بدء ومختتم وهذه بردة التجان قدوتنا تقر عينا لقطب الكون والحشم فاقبله يا ربي يا رحمن يا أملي ولا تخيب رجائي واسع النعم فاغفر لناظمها واغفر لقارئها واغفر لسامعها غفار ذا النسم وصل يا ربي للمختار شافعنا وسلما أبدا والآل كلهم على الإمام والسر النور مركزه ذي الختم والكتم والكنز الرضا عظيم allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp جاتها وهم عليه بكل يا بلنا لنا لقد سألت الندى من أين فارتسب لشيخ أحمد مدسيس وهو يا لمن ظلني فيا إلهي تقبل منه حاجته ومن عليه بكل ما له سألت الندى من أين فاحتسب وفي شيخ أحمد فيه وهو